xam nga bu njëkk ku ma saan seen sëb sëñ daara da mel ne yàlla nga seen waxuma la seen daara waaye école yi école yi taalaame danaan am quatre grand day am ba nga xam ni da école yi dañ daan yar dañ daan yar nga xam ni ku seen sa mètre boo nekkee ci mbedd boo seen sa mètre sax da ngay daw ndax lu mu la nga def ko boo ñëwee ci école ba ëllëg dana la ci dana la ci bi da daan yar daara ji daan yar léegi benn mètre ñemeetu la dóor élève daara ji su ko dóoratu ñu jàpp la ku jéngati ñu jàpp la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 xeewalam yu mag yi wa baatinan yu li mu wut yi nga xam ne waxtu wu ne noo ngi ciy teg sunu bët lahzatan baada lahza foo toll yaa ngi gis lu la yàlla jox loo xamante ne li lu ko mat a sant la da ngay gis ne mënoo koo ñàkk gis ñu ko xañ te jox la ko te defaloo ko dara kon sant ko war na yu julli ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa ki nga xam ne ursila rahmatan lil di jaajëfal Seexuna Seex Ahmadul Xadiim ginnaaw loolu bokk yi nu wuy di waxtaan ci jikko yi ak lu defar jikko yi ak lu koy defar ndax sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal xiyaam amul lu fa gën a diis ci jikko ju rafet fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi iishatin raadiya wa amma man xafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya koo xamante ni kii say balaas yow diis na fa yow yaay ki fay dund dund bu neex yaay dem àjjana koo xam ne sa balaas yu woyof na fa yow yaay ki nga xam ne yaa fay dund dund bu naqar yaay dem sawara te nag bokk na ca la fay diisal ay balaas jikko yu rafet say jikko bu xasee rafet boo ko loo ca tege te day doy looloo tax bokk yi rafetal jikko yi yar ci njaboot gi di waru gar loo xamante ne lu war la loo xam lu nu war di waxtaane waxtu nekk la kenn ku nekk di ci bàyyi sa xel te jikko ju rafet moom sa xel sax dala koy may lépp noo xam ne boo na bëggoon a jëfante jëflante nit xoolal ba xam ndax ku jëflante woon yow dana la neexam déet waaw soo ko xool soo ko nattee ci sa bopp rek danga nga daal di xam nooy jëflanteeg keneen da nga daal di xam it nooy jëflanteeg sa borom kon nag nan rafetal jikko yi te yar ci njaboot gi defar nag boo ko bëggee da ngay fexe ba xam lay yàq la ngay defar bu ko defee laltaay ko jiital ko ca ca ca ca defar ba di ca sàmmonteeg moom li nga bëgg a defar soo xamul li koy yàq loo defar it mën naa yàquwaat te doo ko yëg waaye da ngay xam la koy yàq li yàq jukko yi ngay xam boo ko defee di ko bàyyi xel ci sab defar dana la jàppale ci defar bi dafa am benn waay boo xam ne mi ngi bokk ci mustasriqoona yi maanaam orientaliste yi dafa wax ni màbb aw xeet ak yàq ay jikko nee na jërul xeex jërul xuloo sa mbubb sax bu mu coxotti ko jëral ñett jëlal ñetti mooya rek nga jëfandikoo ko ñetti mooya rek nee na jël ko nga jëfandikoo ko benn bi mooy daw dawrul um maanaam bu ndey ci njaboot moom ngay fexe ba yàq ko ba dindi ko ndax islaam li mu rëdd mooy jigéen ak njaboot ab société la ñaar ñoo koy seq muy góor gi ak jigéen ji kenn ku nekk daa am lu ko ci war jigéen ji dañ ko ni waqarna fi na saxal ci kër gi toppatoo njaboot gi bu ko defee di leen seere di leen di leen dundal di leen sàmm di def ci ñoom jom di def ci ñoom jikko yu rafet di def ci ñoom nangam ak nangam seere leen ba dara du leen mën a yàq loolu mooy roolu jigéen ji ci njaboot gi góor gi li ciy roolam mooy dem wuti génn kër gi dem wuti fexe ba ñii mu bàyyi ci kër gi duñ tumuranke dara ñëw loolu bu ñaar ñooñu kenn ku nekk bu bu bu rôlam na mu ko waree na mu ko war a defee société ba baax léegi nag mu ni li ngay njëkkee mooy fexeel ba euh, roolu ndey bi ci njaboot gi nga yàq ko moom fexe ba gëmloo jigéen ji ne ko gëmloo ko gëm sa bopp ak wuti sa yëfi bopp ba bala kenn tëj ci kër gi bala kenn tëj ci njaboot gi demal wutali sa sa bopp bu ku la ku la mënal nga mënal sa bopp ku nga mënalut nga mënal sa bopp fexe ba jigéen ji gëm liberté fexe ba jigéen ji gëm euh, amal boppam fexe ba jigéen ji gëm dem wutil boppam boo ko defee muy génn kër gi di parang parang di dem di wuti di dem ci marché yi di dem feneen saa su xëyee defar biberon jox ko gone gi am rakkam wala wala mbindaan jox ko ko daal di leen fay bàyyi dem bàyyi fi njaboot góor gi xëy na dem xëy liggéey jigéen ji xëy na dem topp tànkam dem bu ko defee bàyyi njaboot gi ci kër gi kenn séeréwu leen kenn du def ci ñoom jikko ji rafet kenn du def ci ñoom jom kenn du def ci ñoom am xel kenn du def ci ñoom jomb kenn du def ci ñoom dara ndax ñoomu neen nga fi ba ak ñu leen tënewul nit mën na fee dugg def ci ñoom yàq fi mën nañoo génn ci mbedd mi fore fi loo xam ne doo ko xam bu ko defee gone yi njaboot gi nañu dund ci loolu nee na loolu ngay njëkke saa soo ko defee rek tàmbali ngaa réussir réussir nga cinquante pour cent ci li nga bëgg a yàq boo fexee ba eh, dawrul um mooy roolu ndey ci njaboot gi nga fexe ba ba yàq ko ba ndey tëratul njaboot gi di ko di ko focc di dem bàyyi bu xëyee dem ndey bu xëyee dem loolu bu boobaa la nga bëgg yaa ngi koy tàmbalee am te mbokk yi arab al al um hiya al madrasatu al ula ndey mooy école bi njëkk ci doom ndey borom xam-xam yi dañu ni jigéen ji bu tolloog diggante sax barab yi muy fréquenté ak jikko yu muy def day marqué ca doom ja boroom xam-xam yi wax nañu ne nit dana dana dana dana jëm bu màgg ba ànd akum xel di généer dara loo xam ne du xamati fu mu ko xamee woon te fekk maa ngi ko générer woon ba mu nekkee ci biiru ndey waaye duutu ko mën a xam mën nay dox sax ba ni yemm ci dara mel na lu xam loola. te du yi fu mu ko xamee woon fekk ca biiru ndeyam la ko généré woon loolu borom xam-xam yi wax nañ lool nga xam ni gone ci biiru ndeyam lay tàmbalee di inspiré di jël dara bu juddoo ndey ji di ko nàmpal muy xool ndey ji di nàmp ci moom di jël ci moom ba tàmbalee xàmmee li ndey ji xam mu di ko wax li ndey ji wax mu di ko xam li muy def mu di ko xam fu muy jëm mu di ko xam lu muy nga xam ni ci ndey ji lay copier loolu juróom-ñaari at yooyu ba juróom-ñett la ca ndey jay la mu jëlee ca ndey ja kenn mënu koo dindi kenn mënu koo raxas ba mu set loolu moo tax mu ne al ummi hiya al madrasatul ula ndey mooy école bu njëkk bu ko defee nag teg ca nag sax si kër gi nag seere ko loolu nga defoon ci moom li ñu defoon ci yow te mu tàmbalee nekk ñoom nga tax nga sax ci kër gi seere ko di def ci moom jikko yu rafet di ko jàngal ay di ko jàngal liggéey di ko jàngal toog di ko jàngal solin di ko jàngal aw waxin di ko jàngal comportement yu rafet ba nga xamante ni su màggee fu mu dem dana fu mën a ne nee na loolu ngay njëkk yàq soo ko yàqee bokk na xool leen ba xam ndax loolu am nañ ci walla amuñ ci suñu jigéen ñi gën a bari nangootuñoo toog ci kër yi te jigéen te góor ñi fekk leen ci ndax daa noppale bala na reesonal defal boppam am na ñoo xam ne dañ koo mënut te séquñu ak jigéen ju ju mën a muñ waaye am na ci ñoo ne mën nañ ko waaye daa noppale dañoo bëgg lu yomb bala na reesonal defal boppam da ko cee daal di bàyyi fekk lu mu mën a am la nga doon am lépp lépp lépp nga financé ko ci moom ngir mu seere njaboot gii jaroon na ko ci yow nga bañ a denc dara finance ci moom loo xam xamante dana mën a toog ba seere njaboot bi waaye day mel ne maal asaf loolu daa mel ne dindi nañ ko ci suñ xel yi ba bàyyiwuñ ko xel loolu mbokk yi mooy li njëkk ci li li li li li yàqu ci ab société mooy jiw woo xam ni bu xasee màgg la muy la muy meññ du la neex te doo ci mën dara ndax dafa yàgg kon dawrul um rolu ndey nee na ngay njëkk yàq ci njaboot gi ba duutu gëm séer ak njaboot duutu gëm toog nee na loolu mooy bu njëkk ñaareel ba nee na mooy nga yàq njàng mi fexe ba ñiy jàngale ñi ñuy jàngal duutuñu leen teg fenn ñiy jàngale ñi jàngal duutuñu leen wormaal duutuñu leen ragal duutuñu leen eh, teg fenn dañ leen di sax yëpp fexe ba loolu am xam nga bu njëkk ku ma saan seen sëñ daara da mel na yàlla nga seen waxuma la seen dara waaye école yi école yi taalaame danaan am quatre grand day am ba nga xam ni da école yi dañ daan yar dañ daan yar nga xam ni ku seen sa mètre boo nekk ci mbedd boo seen sa mètre sax da daw ndax lu mu la seen nga def ko boo ñëwee ci école ba ëllëg dana la ci dana la ci yar école bi da daan yar daara ji daan yar léegi benn maître ñemeetu la dóor élève am daara ji ko dóoratu ñu jàpp la ku jéngati ñu jàpp la jubluwuñ ci lu mooy gone yi libre am liberté ba bu ko defee nag ki ngay jàngal ki ngay seere muy gone ak gone ni mu bëggee liberté bu ko wóoree ni ñi mu woo koo dóor dalay yëpp du taraat ak fen lu ko neex rek lay def nee na loolu mooy bu ñaareel fexeel ba jàngalekat bi duutu am benn valeur ci kanamu ki muy jàngal da da koy yëpp jàngalekat yi nee ñu léegi école yi lee da ngay jàngale école di ko wax dara sax mu di la ree mu di la ree ndax ndax yeb nga xam ne da nga naan si yow jox ko bindam bi ba ngeen tàggoo ci jàmm naa ba leneen bañ leneen bañ la caa fekk nee na loolu mooy bu ñaareel bi fexeel ba yàq njàng mi fexe ba kii jàngale ñiy jàng ñi mu jàngal duñ ko teg fenn loole bu boobaa du mën a def sax ci yow xam-xam ndax du la ko yéene ñaareel ba itam du barkeel loolu moo tax léegi si nga gis borom yi diplôme yoo xam ne seen mustawa seen dip seen seen seen niveau eggu ci yor bi diplôme yu kawe te xamoo dara ñooñu la ñuy jox liggéey yi ñu di ko yàq ñooñu la jox société yi ñu di ko yàq ndax seen euh, diplôme ya ñu am seen mustawa da caa eggut loolu mooy xew moo moo bari léegi ñetteel ba nee na ñetteel ba boo fexee ba yàq roolu ndey ci jaboot gi fexee ba yàq roolu jàngalekat bi ci njàng mi nee na ñetteel bi mooy fexeel ba yàq roolu kilifteef kilifteef bu mu amati kilifteef bu mu amati bàyyi na ko doomam yëpp kilif ak diine buñ ko tegati fenn ñëpp daal loo xam ni kilifteef la nga xam ni mën naa jeexital ci nit ñi mën nañ koo gëm mën nañ koo man naa wax ñu def ko mën nañ koy déglu ñoo ñu yàqal seen crédibilité ci nit ñi ba nga xam ni yàq seenub der def def sikki sàkk ci ñoom ci nit ñi ba nga xam ne nit ñi dañ leen di yëpp duutuñu duutuñu leen yor duutuñu leen roy loolu nañ ko xool ba xam jamono ji nu toll ndax noo ngi ci wala déet léegi nga ñemee toog di déglu rajo di déglu rajo wala ngay déglu wala ngay déglu ab ab euh, wala dara dégg ñuy wax kilifa diine lu mel na xeme te ka koy ka koy wax ña koy xam ña koy ña xam ña ngi koy dégg te bu njëkk ku ko mësaan def dañ lay rey waaye léegi ko ne ñemee na ko yëpp nañ kilifa yi waajur yi doom yi wégetuñu waajur yi taalibe yi yëbatu wégetuñu kilifa yi kilifa yi yi kenn wégatu leen nguur yeeg kilifa yi diine yi ak kilifa yi dañ leen di saaga dañ leen di wax kenn y kenn kenn wégatul kilifteef kilifteef amatul mu ne ñett yooyu saa soo ko amee ciw xeet la nga ca bëgg am nga ko loolu nag ku xool ci nun ñett yëpp da nga ca teg sa bët jigéen ñi gëmatuñu rolu seer njaboot borom xam-xam yi mënatuñoo jàngale ndax ñuy jàngal tegatuñu leen fenn kilifay diine yi kilifay aada yi tegatuñu leen fenn loolu nag na ngeen xam ni nañu bàyyi xel ni du loo xam ne rek asaar la dafa am noonu déedéet lu ñu organiser la lu ñuy jàngale la lu ñuy jàngale la lu ñu organiser la lu ñuy jàngale la ndax nguur goo gis loolu la bëgg ci xeetam ndax lam bëgg mooy am ca kilifa ko teef goo xam ni keneen du ko ca am nguur goo gis loolu la bëgg ci xeetam te moom am na doole am na alal mën naa ger ña nangoo geru mën naa xupp ña nangoo xupp ba tax na moom bu ko bàyyee ko xeetam man na leen a not ndax mën naa ger ña ca ëpp ba ñu topp ci gannaawam ña nanguwut a ger mën na leen a xupp ba ñu toog ba ñu topp ci gannaawam waaye nag bu keneen am geneen kilifteef loolu bokk yi man ni loolu mooy li nga xam ne mooy yàq njaboot gi loolu mooy yàq jikko yi loolu mooy yàq àdduna bi nan fexe nag ba bàyyi xel ñett ñoonu képp ko ne sa kër loo mën ci sa soxna toog ci sa kër seereel la sa njaboot gii waaye nag loolu yaa ngi koy amee ca jël tànn nag tànn nag dañuy wax ndey dañ koy tànn dañuy wax ne eh, eh, yar doom yaa ngi koy tàmbalee ca ndey ja ba nga tëkkagul ndey ja mag ñi dañ daan tànn dañ daan wax demal ci kër diw si ay sëy kër lañu léegi da ngay xool ku rafet léegi da ngay xool ku borom juddu léegi da ngay xool borom alal waaw léegi da ngay xool borom borom situation ab woy ab woykat la wala nangamkat la nangamkat la am na situation kooku rek ngay xool léegi xoolatoo jikko bu njëkk dañ daan wax demal ci kër gi mag ñi daa ñu xool ab taar ci soxna buñ ko ca fekkee bàyyi ko ca de mu gën a leen waaye buñ ko ca fekkut faale wuñ ko lañ daan xool mooy euh, nit nit ku yiw nit ku bokk ci sidit gu kowe nit ku yiw koo xamante ni kii defar nañ ko defar baax moo tax danaan tànnal seen doom sa kër bàyyi diw ngay dem sa kër yaay diw ngay dem ndax ñoom ay saykat lañu loolu nag kenn waxatu ko léegi kenn xoolatul loolu kenn si foofu nag fa lay fii tàmbalee tànnal ko ndey sa doom tànnal ko ndey bul xool taar bul xool alal waaye xoolal jikko xoolal diine yonent bi salaa sallam deni dis na denc diine ngirub taaram jigéen ngirub taaram dis na denc jigéen ngir juddoom waaye dis na denc denc jigéen ngir ngir diineem nee na jëlal boobu nag dencal jigéen ngir ji euh, diineem ak jikkoom soo ko defee soo ko toog loo ci sa kër dana ko nangu te it nag la la war ci moom nga fexe ba dara bañ caa manqué walla lu ci manqué dara bañ ko caa leer mu xam ne danga ko koo mënut waaye mu bañ a am njortu lu ñaaw ci ne mën nga ko da koo defut loola la koy waral mooy waxtaan moom day waxtaan moom mu bañ laa umpale la nga am nga di ko ko jox te di ko sant mu toog ci njaboot ga di ko seere yow ngay dem di wuti de ami lii saa kenn ku nekk war na koo jéem sa njaboot ci ngay tàmbalee yar sa njaboot la ca des mooy jàngalekat yi nañu fexe ba na ñu fexe ba seen gëdd ba ñu amoon dellu si loolu nag état moom moo ni fi mën a dimbale ndax état yii fi weesu yooyu ñooy yàq eh, eh, eh, deru jàngalekat yi ñooñu ñooñu ñi nga xam ne temps jàngalekat yi kenn tegalul fenn ndax gone boo koy sañatu la yar rek mu yeb la te gone mag dañ daan wax naan gone xamul yàlla yar la xam gone dañ koy yar waaye di su dóor gone di su nangam gone jéng du ko am ku jaar ci daara te mosuñ laa jéng daanaka bëriwut ku fi toog di wax ba ci suñ kilifa yu mag yi ñu ci nañ leen am na ñoo xam ne léegi yaa ngi seen tànk ba tey waaye tey jii nag rëccu rëccu leen lañ doon lañ leen daan jéng kon gone dañ koy yar saa suñ fi jëlee kenn du laal gone kenn du laal jigéen lu booba lañ tàmbalee yàq kon nag mbokk yi nañ li ci yooyu tàmbalee fii nag soog a nag jéem a yar nag euh, te suñ kilifa yi ñu wekk leen kilifteef nu fexe ba mu dellu si kilifteefu aada gi muy nijaay baay ndey mag bàjjan ñu jox leen seen kilifteef ba mat sëkk weg leen teg leen fañ leen war a teg sa kilifa diine gi nga xam ne mooy sa wasila nga jox ko kilifteef gu mat sëkk di dég di ko déglu tomb ci ndigalam di bàyyi tereem loolu buñ ko defee ñett yi yi moom la ñuy xeexe de ndax ñett yi lañ no xeexe ba gañe na ko bu ñu bëggee dellu si ñett yi ci la ñuy dellu si xeex ci yàlla na ci yàlla dimbale nag si kattanam ak mbaaxam barkab sëñ Tuubaa ginnaaw nag sunu réew mi nag soppiku na te jàpp nañ ni dem nañ ci loxo yoo xam ne jàpp nañ ni jàpp nañ ni ñu set lañu ndax loolu lañ nu woon loolu lañ nu wax yaakaar naa bu leen yàlla dimbalee lu bari dana faju ci lii nu doon wax yàlla leen yàlla dimbale te dimbale nu te yokk wërsëg wi may nu may nu may nu jub tegal na suñu tànk ci mën a jaamu yàlla yaxfirullaahu li wa lakum